bu ñu sukkandikoo ci projet de loi de finances atum 2024 budget bu réewu Sénégal war na yegg ba si juróom-ñaari junni milliards ci suñu koppar mu di yokkute bu toll ci juróomi téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak juróom bu ñu ko méngaleek budget bu atum 2023 bi yemoon ci juróom benn junni milliards yu teg ñeenti téeméeri million fukk ak benn yu toftal juróom croissance économique bu réewu Sénégal war na yegg déwén ci téeméer boo jël fukk ak ñaar yu toftal ñeent réew maa ngi xaarandi yokkute si mbirum recette fiscale yëfi war a yegg si téeméer boo jël ñax fukk ak ñett yi si wàllum dépense personnelle natt nañ ko si téeméeri milliards ak fukk ak ñett si suñu koppar su dee di nag li déficit budgétaire yëfi natt nañ ko si téeméer boo jël ñett yu toftal juróom-ñeent si PIB bu réewu Sénégal jëwriñ ji gàll wàllu finance ak budget di xamle rek nii li waral boobu la yokkutee si wàllum budget bu réewu Sénégal dara waralu ko lu dul résultat yu am solo yi nga xam ne am nañu ko si lu ñeel ndajalem recette interne yi ak it jooyant yi nga xam ne indi nañu ko ci wàllum dépense yi tudd na it njeexital yu am solo yi nga xam ne nii programme bi ñu duppee stratégie de recette à moyen terme di SRMT andi na ko si budget bu réew Sénégal moom Mamadou Moustapha Ba tudd na it pexe yi nga xam ne nguuru Sénégal lal na ko ngir rek wàññi anam gi nga xamee ne noonu la personnel état bi doon dundee nee na yooyu la dogal tax na ba koppar gi ñu doon génnee wàññeeku lool jàppaleen ni ñetti at yi ñu dëppmal di 2024 jàpp 2026 croissance bu économie bu réewu Sénégal war na dem ba toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar yu toftal juróom-ñett bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi gàll wàllu finance ak budget ci lu ñeel nag njëg yi di prix yi nee na yëf yi daana am tan ndax ñoo ngi koy xayma ci diggante atum 2024 atum 2026 si téeméer boo jël ñaar yu toftal juróom